waaw loolu moom euh, sëñ bi moom lépp lu mu def sami ana waata xanaa rek waaye ab murit moom baaxul di xalaat li ñuy wax sëñ Saliou daa wax naan ak bi am xel du ko womat loolu nag boo ko déggee mooy àll seen yow noonu bi bi mooy lépp lu sëb sëriñ digal rek warutoo caa xalaat sami ana waata xanaa rek waaye waaye noonu nu uminu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din moom sa de dee kon ñoom it dañ leen di ñaaral. ñoo xam ne lenn la rek ndax si Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne foo déggee ñaar di xëccoo rek adduna da caarax waaye bu yàlla kese taxee xëccoo mënu ci am ndax nee na daal koy misaal ci ne doo dégg mukk ku ne xajaloo fi xajaloo fi damay julli xajaloo fi damay julli doo ko ndax kon suñ borom yaatal na lépp kon foo dégg ñaar di xëccoo rek na ma ko waxoon dara jaay njëriñ a tax kon nag bu fekkee Sëriñ Tuubaa rek leen tax a jóg te dégg nga sëñ bi. kon lu mu ci doon rek eh, seytaane moom mbirum suñu fu mu jógee dina làng waaye du ci am ndam kon nag yàlla def na ci Cheikh Mouhamadou Mountakha te ay kilifaam daa ko ci liggéeyloo day mel ne tawfeex jooju moo ko topp ba yàlla def lii itam ñu dajoolu waaj moo tax daaw ci màggal ga waxoon laa waxoon naa leen déen waskuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'daan fa allafa bayna quluubikum fa asbahatum bi ni'matihi ixwaanan wa kuntum ala shafa ala safa xumratin mina naar fa anqasakum minha dama koy def istilaax rek ñoom itam yabe leen ko rek ñoo xam ne li def euh, xel du ko mat xalaat du ko mat waaye ndigal la loo xam ne nañ xam ne sëñ bi moom lu mu jékki xalaat rek boppam te muy lu jóge ci moom ndam rek a ci jóge asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa